Jungle. Audio Jungle. maa ngi rafetlu bu baax action yi ngeen di mën a fii lu rafet la yaakaar naa lii nañ ko commencé bu yàgg euh, mais nag dara dara yeexul daal lii maa ngi koy rafetlu bu baax ñu ñëw fii nettoyé fii si Rufisque yaakaar naa Sénégal yëpp nañ si jàngee pour ku ne profito defar sa dëkk ba mu set ndax dëkk moom bu setul dara mënul dox kon nag lii lu rafet la ñu ngi koy rafetlu bu baax. est-ce que nag benn bëccëg bi yaakaar ngeen ne war na mën a nekk juste benn action boo xam ne tey rek lañ koy def bu yem tey wala dangay woo Sénégalais yëpp que lu ñu mel dëkk lu sax. loolu moom bu fekkee tey rek lañ ko mën loolu yàq temps la xam nga lii moom continuité la war a doon parce dafa nekk loo xam ni ñuy gisee tey social media nu mu demee ñuy wane yu bon yi ku ne di ci di ko aimé di ci wax yaakaar naa yu mel nii lañ war a wane sénégalais yi gis ko. Euh, copier ko nit bi copier day copier lu baax yaakaar naa lii lu baax la lu rafet la euh, yéen ñi fi nekk yak maa ngi maa ngi leen di ñaan ku ci nekk mu tas ko fépp si Sénégal ak fépp si àdduna bi ni ñi gis ko xool action yu rafet yi ba ku ne toppandoo ko ba Sénégal mun a set ndax dëkk moom bu setee lu ne mën na si tegu te yaakaar naa ñun fii lañ war a commencé kon lii maa ngi koy maa ngi koy rafetlu bu baax. Audio Jungle. Audio Jungle.